everywhere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 takk boppam buum ti baat faat ci biir appartement bi mu léewoon la def tey mbir moomu nee ñu di tax gendarme bi def ko mooy dafa amoon jàngoro ju metti ju mu doon sooxaale ma ne ko jaru ko nag de vendredi 28 octobre bi weesu la ñu fekk neewam ci biir appartement am ko njëkk a gis nag mooy ab cousinam bi nga xam ne moo fa doon jaar saa su nekk di ko nemmeeku gendarme bi dafa feebar feebar bu metti doon suivre traitement boo xam ne bés bu nekk da doon jël ay garab nee ñu nag bis bi muy xaru moom ci boppam moo woo cousinam bi téléphone nekkoon na ñëw ci chambre bi mu luwee te bu fa ñëwee tiroir bi dina fa fekk ab leetar naka noonu bi cousine bi ñëwee ci appartement bi ba gis gendarme bi takk boppam buum ci baat xaru tiit la def daal di yuuxu hmm, ma ne nag ana lu ko fi jar mu lañ ba tee xool ci biir tiroir bi fekk na fa ab lettre bu bind bàyyi fa gendarme boobu nag nee ñoo célibataire la woon amul jabar amul doom te it nga doon tabax ak këram ci bërëb boobu R plus boo xam ne boo demee sànce bi ma nga fa yeggagul ba tey yi man ne nag dara dafee jarul xaru moo tax maa ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona la wax la xew ca mbuur ram na doy war ab waay bu am jàngoro sida daal moo fa nax as ndaw su mu diggan ne daf koy takk bas ba mujj séq ak moom nga ne ma ne ji yamu ci dee ndax escroqué na ko sept cent mille gannaaw bëgg ba noppi tegal ko ca ay xas ne ko dangaa ñaaw waaye kii a réew mbir moomu nag mujj naa teeri ci loxoy yoon ca tribunal bu mbuur waa ji def ñaaw jooju nag nee nañu mës nañ ko teg loxo ba daan ko juróomi atu kaso ma ne bi ñu ko gracier mu génn yàggul sa waay ab guinéen dëkk ca mbuur ca sali boobu ak léegi def na fa lu toll ci fukki at moom daal benn xaritam la gis mu def estati benn xale bu jigéen ci wasabam sawaay dal di daanu bleer ne xarit bi daal kii mu gis la bëgg a def soxnaam naka noonu ci la doxee mbir mi ba lijjanti contact yi fekk booba ndaw sa mi ngi Guinée mu fexe ba ñu am relation a distance naka noonu ñoom ñaar ñu necc ba ndaw si ànd ak tantam dal di ñëw Sénégal dem ca sali fekki waaja ñoom ñaar bi ñu gisante rek cay nekk te it bañ ci dee nekk taaw ñu protéger wu ma ne ko musiba ñëw na de waaye ndaw si xamu si woon dara waa ji it nëbb ko boppam sa nag ba mu découvrir xale bi ba noppi woo xarit bi la def ne ko man daal ki ma gisoon ci whatsapp bi ak taar ba ak na mu mel dafa mel ni du kii ndax kii daal ñaaw ba dee la def ay waay samba mbir moom li ci gën a tee doy waar waa ji yemul foofu ndax dafa gisaan ndaw si na ko day dem voyage Maroc uti ay bagage ndaw si lebal ko sept cent mille francs sawaay ba mu tolee ci sept cent mille francs yi daa jël ndaw si indi ko ndakaaru ci ab kër tantam daa di ko fay tayle dal di dellu saliga mu nekkoon ndaw si bi mu toogee toog di ko xaar ay bësi bës xamatul yëf nu mu demee ci la demee porte plainte ci commissariat naka noonu ci la ñu tegee waa ji loxo polis nag bi mu tegee waa ji loxo comme mës nañ koo jàpp te amoon nañ dossier médical am ci la enquêteurs yi ndaw si na dem def dépistage ma ne ko musiba am na de ndax lay xew xew na moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grave corona la wax la xewoon ca Jurbel xale bu jigéen boobu nga xam ne dafa encaissé woon may gu njëkk toll ci huit cent quatre-vingt mille jël ko ba noppi ne du seeg waa ji ma ne atte ba mujj naa daanu laa wax ndax ndaw si ak yaayam ci boppam tribunal mujj na leen a ne waay waaw góore waay gannaaw ba ñu remboursé waa ji huit cent quatre-vingt mille ba mu mat sëkk ma ne ko nag dañu fii bu doon demee nii dana mbaax ndax góor liggéeya liggéey dang-dangi maçon menee bar ba sonn ba ñëw joxeen may gu njëkkam ñu arnaqué lekk avance ba ñu bëri war naa jeex ci réew mi lii daal ab loi la boo xam ne war ko koo criminaliser mu doonoon seen xibaaru buzz dig dage beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz